ci leen di gox bu faré ci commune bu Diama école primaire ba fa nek daldé dalon am solo bayoko ko ci kenn ci ki nga xamante doomu gox bi la ñu xam ko ci turu Mamadou Guèye lolé nak nek lo xamante mu ngi jëm ci walu fourniture scolaire yo nak xayma nañ ko nak ci lu ëpp sax million lolé nak ki nga xamante mom moko fa indi mom modi di Pathé Diop moom mi téwal parrain bi ci bis boobule. bis bi aussi li ngay wax lu reuy la ci man ndax man bi may ñew dama yaakaaroon ni su ma ñëwee jàngalekat yi rek laa fi fekk ak élèves yi yàlla def nag ñoom ñu nu ko jox ñu ne affaire bi rëy na si ñoom rëy gu nga xam ne gii il faut que ñu defal ko aussi lu rëy moo tax ñu organiser parents yi ñëw ñëpp ñëw macha allah. lu ëpp fukki at ak ñent kilifa gi di am taxaway bu ni mel ci gox bi lolé nak Pathé job delu si waat rek di xamlé rek jéego yoyé nga xamante yag na koy amal ana lan ak lan la daan doon té yit di wane rek ana lan modi taxaway wi nga xamante namu namm na ko wéyal jëm ci école bu ci leen. Ah, man naa ne li ñu ni du jëkk c'est pas la première fois et dum du nek la dernière fois inshallah ndax euh, parrain bi and nañu ak mom lu mat 14 ans mi def distribution de prix du won ben école rek il y avait 14 écoles ou bien 16 écoles ci tak gañ bi biñu démé ba atou Covid bi ñëw ci lañu taxaw defatuñu ko parce que boobu duñu interdire rassemblement yi yëpp loolu mom moo tax. Euh, bu ñu aussi ci école bi dégg na jooytu parents yi ñu ne école bi dafa am problème toilette effectivement dafa am toilette problème toilette ndax man dem naa fa man depuis 96 la seize ci école bi. boobu école bi amul clôture amul dara kon xam naa li nekk si école bi te incha allah ki nga xam ne kii moo ma fi yónni dinaa ko rendre contre fidèlement li nga xam ne lii moom moo fi jóge lépp li nga xam ne lii parents yi wax nañu ko ak li nga xam ne li moom la ñu dese aussi dinaa ko ko jottali bu soobee yàlla xam naa ni incha allah dana si def lu mu man naka noonee nag ba tey ci ay kàddoom moom Pathé Diop mu dal di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way jur yi ñu gën a am taxawaay ci ndongo yi ngir nag li nga xamante ni moom moo di résultat yi gën a mën a jong fi nga xamante ni moom moo di ci école primaire bu ci lenn. état bi dafa ne ubbi tey jàng tey yàlla def parents yi seen loxo jotul seen ginnaaw ba am ku nga xam ne kii di leen a ay fourniture complet comme ni ko directeur waxee léegi ñoom parents yi lu nu mën a jàppalee euh, parrain boobu ak nu nu mën a jàppalee jàngalekat yi moo di surveiller xale yi si kër gi xale yi li nga xam ne lii moom la ñu jàng si école bi duñ ko fi jële bu ñu demee sa kër ga la ñu koy gën a jàng ba mu mokk nga xam ne ëllëg si bi bu nu ñëwee bu leen posé question ñu répondre bu ñu leen waxee récité leen seen leçon ñu récité ba yàlla def bu ñu demee examen résultat bi ñu bëgg yàlla jox na ko si jàmm. li jëm nak ci matériel bobu lé ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi nekk ci école bi wane ci mbékté di xamlé rek lu tollok juroom ñetti at modi livre yu ni mel yo xamante ne bokk na ci fourniture yooyee mënuñu ko am lolé nak tax tay mu doon rek ci ñom mbékté ñu japp rek ni ak li nga ndimbal li dina bok ci lu gëna yombal seenub liggéey jëm ci goné yi. livre yi nga xamné C1 C2 8 ans école yi tuñ ko am ñun jaaxal sa fu ko jëlé donc euh, soulagement la pour ñun encouragement la pour ñun motivation la pour ñun mais aussi dafa boo boo seqeek nit liggéey gis ni mu am ci njàmbarte day tax daf lay daf lay soññeewu kon loolu yaakaar naa yal na yàlla may nopp bu buñ ko déggee bay euh, dolli sunu taxawaay bay xale yi jariñu ngir gën a xiirtal gone yi nag ci wàllu góorgóorlu loole tax nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité scolaire yi daal day jël séddale bi rek def ko noo xamante ni dafa jëm ci wàllu excellence maanaam ña nga xamante ni ñoom ñoo gën a ràññeetlu ci wàllu résultat ñu jiital leen ci joxe bi laata nag ñuy àgg ca ñeneen ña nga xamante ni ñoom ñoo ca topp loolee nag nekk loo xamante ni directeur u école bi dellu siwaat na ci bu baax a baax ngir xamle ana lan moo waral jéego yu ni mel. Euh, émulation dafa baax si ay xale surtout tey niñ ko defee si teewaayu parent yi xale bi ñu ràññ la wan ni la liggéey bi moo tax ñu jox la lii kooku dafa baax si xale yi moo tax niñ ko defee aussi ña ngi koy rafetlu génn parent yi ni ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. lu tolloog fanweeri saak benn bu ci nekk nag am loo xamante ni def na ko ci matériel scolaire ba mu mat sëkk loolee ñu jébbal ko nag ay ndongo loole nekk nag mbégte moo xamante ni comité de gestion wu école bi nga xamante ni ka ko jiite moom moo di abdu Kane wane mbégte jëm ci wàll wi te it di ñaanal ki nga xamante ni moom moo di parrain bi laata nag mu cay tekk ñaar ñoo xamante ni tamit ay doomi dëkk bi lañu ku ci mel ni Oumar Ndiaye ak ki nga xamante ni nag moom moo di Badara Gueye ñoom ñëpp rek ñu soob seen loxo ci li nga xamante ni moom moo di liggéey bu ni mel. mu indil école bi tey macha allah ndax waxuma dara waaye manuel scolaire yi lu fi xawoon manqué la lool lool lool te itam dafa mel ni xale yi ñuy jox ay saak ku nekk saak bi ñu def ko bagage équipement bu mu fees kit scolaire dafa mel ne loolu itam am na solo ci parents yi ndax 30 saak yoo xam ne bu ci nekk li matériel bi ci war a dem dem na ci wax dëgg yàlla taabal yi itam li fi nekk ci bagage macha allah lu mel ne CREC daf fi tumuraanke woon waaye incha allah li mu jox ci craie daañu ci liggéey ba année scolaire bi jeex te dootuñu am problème craie dootuñu kon nag gërëm nañu ko sant ko ci turu askan bi yëpp ñi ñaan yàlla geste bi mu def ñeneen ñi di nga xam doomi dëkk bi lañu nañu magnifier geste bi te ñoom itam ñi jéem jaar ci ay tànkam. mu mel ne itam bi loolu passé am na yeneen ñaari doom yu fi rot ndax Badara Gueye rakkam moom itam jaar na ci tànkam. ndax am na ay jumtukaay yoo xam ne jox nañ ko fi juróomi njirim yoo xam ne yi ku ne jox nañ la ay matériels yoo xam ne lépp Badara Gueye moo ko joxe moom itam ci wàllam kon moom itam yàlla na ko yàlla yombalal lu euh, mel ne Umar Ndiaye itam doomu dëkk bi la moom itam joxe na fi ñaari euh, paquet du papier pour euh, impression li ñu liggéey ci machine bi toujours dañoo manqué ay ram papier moom jàppe ne joxe na ñaari ram papier moom itam macha allah yàlla ko yàlla yombalal lu mel ne commune bi itam jaar nañu fi. joxe nañu fi don boo xam ne bi ñu ko séddalee élève bu ne am na ñaari kaye ak ñetti boîte craie. école bu ci leen nag laaj ñu réfectionné waat ko ndax ay jafe yoo xamante ni am na fa jëm ci wàllu toilette yi mur de clôture yi ak yeneen yoo xamante ni dafa ajowu ci salle de classe yi ki nga xamante ni nag moom moo di président CGE bi wéy nag di tàllal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di bonne volonté yi wala sax yenn ci ay autorités yoo xamante ni dinañ leen mën a taxawu ci wàllu wi ngir nag njàngum xale yi gën a ñoŋ ci gox boobu lee école bi ci boppam laaj na réflexion te comme ni ñu ko waxoon sànq toilettes yi ak yëpp sax am nañu problème déjà waaye moo tax képp ku fi ñëw rek dërëm boo fi indi daañu la ko defal ci école bi te incha allah rabbi bi la koy taaral doomu dëkk bi ñoo ci war jiitu ak beneen partenaire bu leen ci fekk si ñu ngi lancé appel ñëpp lu ci waay man def ci école bi lu ci waay man jàppale rek soit le soit le bienvenu quand même lu mel ne toilette xam nga ne bu ñu naan euh, fonctionné wul ci école ku ne xam ne jafe-jafe yi loolu doy na sëkk junj Ah, euh, comme nous avons ko aussi assistance pour le matériel nous avons vraiment ñu ngi ci invité parents d'élèves yëpp lu waaye am bu ko mu di nag lenn ci ay jéego yoo xamante ne askan wi faree foofee ci gox bu ci leen rafetlu nañ ko bu baax a baax rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di wayjur yi yor ndongo daara yi yi nga xamante ni nag ñoom ñoo di bonne volonté yi nga xamante ni ñoom ñooy wéy di ci def CGE bi jaajëfal leen bu baax te rek eh, di wax rek ni war nañu mën a doon ay royukaay jëm ci ngir gën a mën a jëmale kanam école bu ci leen rawatina nag leneen li nga xamante ni am na ci gox boobule.